aca final o yàlla wara ba dem na kër waxu mag dem na ndey taali ma ne lu way doon jaay tay mu lamb final baa ngi noonu ndeysaan diggante Radiakhé ak ki nga xam ne moom mooy Ibou Ndiaye Diofior waaye nee la damay bëggee képp kuy bëggee Zilo TV waaye ku ci yàqoon waxu jàmbur danga defar par équipe diggante Ibou Ndiaye Diofior ak ki nga xam ne moom mooy Radiakhé bu Kër Fodé teewal fi Kaolack Ibou Ndiaye teewal fi Dakar waaye damay bëggee képp kuy bëggee Zilo TV rawatina suma grand Farba Faye maa ngi koy siyaar borom campement Ndangaan samu bëggee naa ko. way ne naa la suma garaa du ko fàtte Omar Mané kontaanee na ko de way borom munde ken du mom ci man ndeysaan waaye saldik waaye Seydou Lamine Ter maa ngi koy siar Seri Mari jo bëggee na ko de borom saabak li ko wër kontaanee na ko Mari jo yaayu bébé fa ma ngi koy kontaanee de way mama Sofi bëggee na ko eh da la yëkkati door ci suuf Dakar jël na ko Dakar jëlaat na ko jëlaat na ko Dakar jëlaat na ko laa ilaha illa